xaar ku koy woowaat góor googu nag juddee Afa Tun ca ca ca ca Saalum jaar Afa Jolof jaar Thiel danañ ci ñëw góor googu la fàttaliku fii muy góor gu màgg googu ci wàllu diine mu am num jaxasoog murid yi danañ ci ñëw ci wàllu diineem mu am num jaxasoog tijaan yi danañ ci ñëw waaye duma sori sama càmmooñ tey ma dalal nag sama xarit. alaaji Habib ñang toog nii sama càmmooñ alaaji Habib ñang nag mooy kër ga fekk baax ci kër ga baax fekk ko fa mu alaaji Ousmane al amin yàlla na fi yàgg lool te wér alaaji Ousmane nag ibnu Ousmane Fati alaaj góor saane mi ngi nii toog sama wet kon sëñ Habib maa ngi lay nuyu waaye bala maa laa jox kàddu gi rek nuyu kun duppee góor gi alaaj góor saane nee na kun ko tuddee rek góor ga ngay dégg waaye Mouhamed lu tudd waaye li li taxoon ñu tuddee ko góor gi nag loolu danañ ci ñëw ci wàllu ñu fekkoon nag jamono da leen magoon ban tuddee ko góor gi loolu indi tur wi xaaj ab yi ma bàyyi la nga nuyoo asalaamualeykum wa rahmatullah jërëjëf xaj Maxtaar bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم mbokki asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi yëkkati kaddu nuyoo kaddu ziyaar di ko jiital ci sunuy kilifa muy xalifa bu maam góor saane ñang radiallahu taala anhu di suñu bàyyi sëriñ Cheikh Fati Ñang ayyadahu llahu wa nasra wa ataala allahu umrahu bi jaahi jaddihi mawlaana maam Gorsane Ñang radiallahu taala anhu wa arda ñu nuy mbooleem njabootam muy njabootu maam Gorsane ñëpp nag bàyyi bàyyiwuñu kenn di nuyu xaj maxtaar yow mi nga xam ne yaa ñu dalal di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ni ñoo nekk fii ci Leral TV di leen ziyaar di nuyu nag borom kër gi alxaaji daam di ko nuyu di ko ziyaar ak mbooleem njaboot gi yëpp nag tabarakallahu ñoo ngi am mbégte bu baax ci dalal bi di jël kàddu gi di la ko delluwaat ngir bañ a guddal ci nuyu jërëjëf alaaji Habib Niang bu alaaji Ousmane sëñ alaaji Ous ah, alaaji Góor Saane Niang ñu ngi lay nuyu di la wax baatu asalaamualeykum alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi alladi xalaqa al insana wa allamahu al bayan wa nawara sudura bilquran wa ala alihi wa ashabihi ulil fasahati wa tibyan nuxayikum bi taxiyati l islam wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu ñi ñu war a nuyu te di ko jaarale suñu mag muy Mouhamadul Habib ndax bu xasee bu nuyoo yaakaar naa ne ñun mhm. dañuy doon ñoo xam ne dañuy topp ca gannaaw waaye nag comme ni mu ko waxee du nuy kilifa yépp di nuyu nag ki nga yow mi nga xam ne yaa ñu dalal di la ziyaar bu baax di la ñaanal yàlla lépp loo xam ne mën nga ko ren yàlla na nga mën déwén lu ko raw ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barke Mouhamadou Gor Sané ñu ngi nii ñu bëgg a waxtaane mhm. waaye di nuyu tamit ñi ma bokkal plateau bi ku mel ni Mouhamadul Habib mhm. ñu ngi koy ziar bu baax di suñu mag di suñu sëriñ di ko mhm. ñaanal yàlla lépp loo xam ne moom la ko yàlla jiiteloo ak li yàlla teg ci loxoom yàlla na ko yàlla téeñal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag ñu bàyyi foofu nuyoo bi. Mhm. incha allah di la ko dellowaat bu baax. jërëjëf damay damay damay taxaw ci yow. Mhm. tey ñu ngi waxtaanee El Hadj Gor wax naa ne moo jut moo juddee aafe tun mhm. ca Saalum jaara jaaram wàcc aafe. góor googu suñ la ko laajee mooy kan loolu ñu ci mën a wax. waaw damay wax ne. auzu billahi min ashaytaani rajim. bismillahi rahmaani rahim. yàlla dafa wax ci alquran ne ala inna awliyaa allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun hmm. yàlla ne ci alquran wali yàlla yëpp hmm. am lenn loo xam ne lu ñuy tiit hmm. wala lu ñuy ragal wala lu ñuy jàq te ki ñu bëgg a waxtaane mu doon góor goo xam ne xajul ci plateau tuddutoon maam góor saane góor gi fi mën lañ ko ko tuddee waaye Mouhamadou Góor Sané ñu ngi la tudd. damay wax naan. góor bu buñ ko waxee li tax ñu wax ko ko mooy góor dëgg la woon. Sané way juróom moo tuddoon Sané Ndiaye. ñang nag dafa doonoon koo xam ne amoon fulla amoon fayda bëri xam-xam xam yàlla xam fam ko jaar lépp ne naru toog am fullaay boppam moo tax ñu tuddee woon ko góor Sané ñang waaye Mouhamad la ko bàyyam tuddee Mame Bara Khoudia mhm. muy Mouhamadou Góor Sané ñang Mouhamadou mhm. Góor dafa doonoon góor goo xam ne lépp lu doomu soxna di xam xamoon na ko mm-hmm. lépp lu doomu soxna di mën mënoon na ko mm-hmm. waaye nag dafa tegoon lépp jël ko jébbal ko magam ji mooy maam Njoogu Mati Njoogu Mati Ñang maam Njoogu Mati Ñang maam mm-hmm. Njoogu Mati Ñang moomu maam Baara Xujja mooy way juróom maam Baara Xujja mooy way juram maam Góor Saane Ñang léegi nag maam Gor Sané mi nga xam ne moom la ñu war a waxtaane tey maam magam maam Njoogu Mati lépp lu nekk ci moom moo ko ci def mm-hmm. gannaaw ba maam Baara Xujja génne àdduna mm-hmm. li ñu naan comme kom mel ni Mouhamadul Habib nekk sama mag mm-hmm. teg ma ci yoon ma ànd ak moom dëggal ko topp ko ndax dañu naan nit ki kilo yar moo mën a mel ni yow waaye dañ naan koo bëgg rek da ko topp ndax sa maam Cheikh Seydi El daf ko wax mm-hmm. wa laysa nafaun ala xubbin bila amalin mm-hmm. wa taabian sunnat al muxtaari taxtanimi mm-hmm. ndax nee nañ damaa bëgg maam Góor Saane Ñang damaa bëgg Mouhamadou Góor Saane Ñang te lépp loo xam ne moom lay digle te lépp loo xam ne moom la nekkoon topp ma ci nekkuma ca kon bëgguma nee na ki bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay roy ay kiliteer yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm. waaye ni Sidi Xaaj Malik ne la mm. wa laysa nafun amul njëriñ ta du mas a am njëriñ mm. ala xubbin ci damaa bëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala nga ne damaa bëgg Mouhamadou Gorsane Ñeng bila amalin te lépp lu mu digle nekkoo ca lépp yow mi nga xam ne sëtam nga la mu digle yëpp nga nekk ca kon kooku moo bëgg te kon la Habib ku bëgg maamam la hmm. waaye ala hubbin bila amalin kon nag wa taabian na nga topp sunnatal muxtaari taxtani mi ndax boo toppee sunnas yénti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam topp nga ki nga xam ne mooy Mouhamadou Góor Saane Ñeng ndax dafa toppoon kan mooy maamam yéen ci yàlla Muhammad muy maamu Aboubacar Siddiq mm-hmm. te wax naa la ne ma maam Gour Sané ñëng moom mu ngay wax ma nga jógee ci Aboubacar Siddiq radiallahu taala anhu ah. te bu ñu ko émission bi may incha allah dinañ la wax nu mu bokkee ba ba Seydina Aboubacar Siddiq radiallahu taala anhu kon Muhammad Gour Sané ñëng moom waaw ma nga juddoo Afetun waaw ca Saalum ca Saalum waaw waaye nag bàyyam mam Baaru Xujja waaw mi nga xam ne dafa àndoon ak ki nga xam ne mooy mam borom moom mooy mam Mor Anta Sali ñu nekkoon lien bu am solo ñu nekkoon di jàng mhm. waaye nag ci mag ñi ñu ne am na ñoo xam ne dañ leen a fekkoon ca daara ja ba ñuy jàng mhm. waaye comme tey ji boo demee ca daara ja fekk fa ay ndaw toog mhm. di gis ay ndaw xam ne ñii am na luy falata ci ñoom am na charisme bu am ci ñoom léegi nag bi nga xamee ne mam baara xujja ak mam njo ak mam mouhamadou mam baara xujja ak mam mor bi ñu àndee nekk ca daara ja am ku ñëw ca daara ja doon gan fekk leen fa ne dafay fanaan ba mu fanaane nag ba mu tëddee ba guddi waaye la ko yàlla di woon mooy mu ngi koy wax Mamour Anta ak Mam Bara Xujja hmm. folate ci moom mu won ne ko ne am na ñaari leer yu fi nekk waaye ñu ngi ëmb ñaari leer hmm. muy Mamour Anta Sali ak Mam Bara Xujja hmm. moomu nag moo jur Maam Góor Saane te Maam Saane ñang moomu Saane Njaay mooy way juróom moo tax ñu koy dàkkantalee Saane Njaay te maam te maam Gor Sané judd na jàng na alquran ba mokkal ko. Mhm. waaye bind na kaamil. moo tax damay wax naan turandoo lu mu kuy tuddee sa doom na ko tuddee ku baax. waaw waaye nit danga koy naw doo koo tuddee sa doom. maam Gor Sané ñang lañ ma tuddee. Mhm. waaye bind naa kaamil ci lan ci barkeb maam Gor Sané ñang mhm. ca daara ja ñu naan ka nga xam ne mooy alxaaji gasama nekk ca géejawaay. moo ma jàngal. ma mokkal ba bind kaamil ci sama loxo mm-hmm. ma royee ko ci kan sama maam ndax dafa jàng alquran jàng xam-xam bind kaamil alquran mm-hmm. boole ci maam Njóogu Mati ba muy dem ba pënd ba di wëri kaamil ba mu yoroon moom la ko joxoon ne ko sama kaamil bii dina am leer goo xam ne dafay génn ca gaaye te bu génnee na nga ànd ak moom ndax kooku mooy ki nga xam ne moo war a foloteel salaatal faatihi te mooy mam Cheikh Seydil Haaji Maalik te boo àndee moom lépp loo bëgg ci tariqa bi dina da nga ko am kon li mu bëgg dégg mooy El góor Gor Sané avant muy gisanteeg Seydil El Hadj Malick mi ngi wérdu salaatul fatiha mu xëy na dafa ñëw mu dolli ko ndax la magam ja waxoon mati xam naa loolu sax après dinaa ci ñëw ndax njoogu mati nan xam na ne mati bu soo ko jur te mati bu soog maam jaare bu so ñoo bokk lépp maam jaare bu so moo jur Serigne Touba Serigne mati bu so nag lan joxoon alaaj baar xujja mu am ci njóogumati ci njóogumati waaw njóogumati moomu nag moo bokk góor alaaj góor sànni lépp dégg naa sama sëriñ di nettali naan euh, njóogumati demoon na sax ba naan góor saane su ma dee tàkk ngay saxaar heure boo tàkki kenn du la kon lu nekk ci avant tout li li nekk ci moom magam def na ko ci moom muy njóogumati mhm. waaye mu déparé aafe aafe tun wàcc aafe jolof mhm. loolu laa bëgg nga ñëw waaw maam góor ma wax la rek waaw bala ma laa wax ba mu wàccee waaye dama lay wax fi maam góor saane ñu bokk di la wax ne képp koo xam ne baax na ci réew mi mm-hmm. baax na ci réew mi mbokkam nga mbokk mbokk mbokk maam góor saane ñu waaye képp ku baax ci réew mi mm-hmm. bokk nga jolof mm-hmm. maam góor saane ñang dafa doon bokk ak Cheikh Seydil Hadji Malick bokk ak maam borom Touba bokk ak ki nga xam ne mooy alaaji Abdoul Aziz Dabakh ba nopp doon way doon doon Seydil Hadji Malick doon way jur alaaji Abdoul Aziz Dabakh ndax Bouna Bassine ak maane Bassine mhm. ak Koddu Bassine mhm. ak Jabu Bassine mhm. ñi ñoo bokk ndey ak baay waaw léegi nag Bouna Bassine moo jur Balla moo jur Bouna Bassine Bouna Bassine tafsir démb Bouna moo jur démb Bouna moo jur démb Bouna uh-huh. mu jur mu jur maam Ousmane mu jur maam Cheikh Seydil Hadji Malick dëgg la radiallahu taala anhu mu ne maane baasin hmm. moo jur aysa maane hmm. mu jur balla aysa mu jur maam mor anta seli mu jur maam borom touba radiallahu taala anhu bokk gaa ngi noonu bokk gaa ngi noonu hmm. moo tax jamono dañoo xamul mais mag ñi li daan doxal mooy bokk dañuy bokk ci deret waaye non seulement dañuy bokk dañuy bokk ànd li ñu def mooy diine ndax damay dégg mag ñi ne nit mën na bañ a doon sa bokk waaye nan lay doonee sa mbokk ci diine Mm-hmm. mu ne nag code basin moomu. moo jur njaga code basin. waaw njaga code basin moomu moo jur ngañ xari mbàkke. ngañ xari mbàkke moomu moo jur maam Sofiyatu Ñang mu jur alxaaji Abdul Aziz Dabaax. ba noppi nga ne. jabu basin moo jur batoor jabu. Mm-hmm. mu jur Saane Ndiaye mu jur mu Mouhamadou Góor Saane Ñang mee ca Jolof. mi ñuy waxtaanee tey mi ñuy waxtaanee tey. Mm. kon. Mm. maam Góor Saane Ñaŋ waaw dama naan tey jii hmm. yàllaa ko dimbali waaw yàllaa ko may ba kenn xamul kan mooy hmm. Góor Saane hmm. waaye lépp mu ne mër ànd ak moom toog ne man kat la ma yàlla may nanu bàyyi ba ëllëg yow mal xiyaam ñu xam ko ñu xam ko ñu xam ko <laughs> foofu dinaa dugg ci yow. waaye def naa ne <laughs> fi fi fi fi turandoo ji nekk. ànd naag àll te xaw xaw na sama yaram a ngi xaw a daw. Mhm. waaye tey góor góor googu ñuy waxtaanee am na fu ko Seydil li Hadj Malick tegoon. ndax góor googu keroog ba nga xamee ne jóge na Afe Jolof jóge fa jëm Thiel ba muy dem Thiel fekk fa kenn ab pël la fekk. Mhm. pël bi doon sàmm. Mhm. jur gi ñaari baat ñett guddi mu gis mu manqué juróom-ñaar wala juróom-ñett mu xam ne am na lu koy lekk gaynde ki bukki la dëkk waaye bi mu gisee El Hadj Góor Saani bi mu ko diisee boo demee ba Thiel ca Jolof jaan mattu fa nit till yàppatu fa bëy jiit mattu fa kooku def loolu nag El Hadj Góor Saani sama la ñuy waxtaane góor googu laa bëgg Habib nga waxal ma ci tuuti nag tey rek xaj Maxtaar waaw dañu am gan hmm. te boo xoolee émission yi nga xam ne def nañ ko ci maam Góor Saani yu ci bari góor gi moo ko doon def comme ni ñu bëggee sax mu dugg incha allah. Hmm, bëgg naa na na dugg léegi. su ko defee rek El Hadj Ousmane Ibn Ousmane na dugg léegi sama téléphone waaye nag waaye nag tey. Euh, dañu am gan gu tedd. muy kii nga xam ne mooy turandoo góor gi. mu nekk ab sëtam ba fay du turandoo maam góor Sané Niang man eh. dama ñëwoon tey ngir wéttali. waaw sama soppe sama xarit Alxaaj Maxtaar. Hmm. indil ko ganam mu waxtaan moom. ci hmm. turandoo Mawlana maam góor Sané Niang radiyallahu waaw kooku nag. waaw mooy dellusiwaat ci question bi. waaw te mooy te mooy borom bés bi. mooy maam Góor Saane dañ ko tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñu dëgmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. te muy mhm. gàmm kooku nga xam ne moom la trondoom bii di waxtaanee. waaw wax maam Cheikh Seydi Hadj Malick. wax Mawlaana maam Góor Saane hmm. maam wax na ko léegi. Hmm. ànd bi du tay waaye ànd démb la woon. Hmm. dafa am lu leen boole. te li leen boole mooy mbokk hmm. d'abord hmm. bi mbokk gi weesoo leen boole leen hmm. mooy maam góor saane ñang ki nga xam ne moo ko jox wérd muy cheikhu tarqiyaam nga xam ne moo ko talqin ci at tariqatu tijaaniya jox ko wérd salaatul fatiha mooy maam njogu kon silsila maam Góor Saane foofu day tomb day romb mhm. dem jaar ci maam Cheikh Omar Foutiyu Tall mhm. jaar ci Chérif Mouhamadul Ghali mhm. jaar ci Mawlana Abil Abbas Ahmad Tidiane Chérif waaye nag mu boole koog Mawlana maam Cheikh Seydi Hadj Malick tamit loolu mooy joxañ ba ñu ne maam Njoogu Mati ne woon na bu fekkee yéen waa Jolof ba mu woowee Jolof yëpp ba Jolof wuy si ne bu ngeen gisee suma bàmmeel gis ne diw waaw diw mooma diw mooma dugal ci bàmmeel mhm. diw a jullee mhm. mu ne ku jàpp koo xam ne maa ko joxoon ab tarixatu tijaaniya mhm. koo xam ne maa ko joxoon salaatul fatiha na xam ne li ma ko joxoon wérul waaye su fekkee gisuloon loolu képp ku jàppoon ci man na nga dem yeesal ci Mawlana maam Góor Saane Ñang ndax Góor Saane dina tàkk te dootul fay mu ne ko nag waaye yow góor mhm. boo léggee biddew dina fekk ca mhm. waalo mhm. biddew boobu mooy Malick Fawad Wele muy Mawlana Maam Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu mu ne ko bu ñëwee na nga topp ci ginnaawam kon loolu joxañ boobu moo leen boole mu yeesalaat ko Maam Cheikh Seydi Hadji Malick ak alaaka bi nga xam ne ni am na ko ci seen diggante mu nekk diggante boo xam ne nekkoon na relation bu jege maam waaye maam góor saane yemul ci loolu waaw boo demee ci way wi nga xam ne Mawlana Maam Cheikh Alhaji Ousmane Niang wax na ko di ko wax ci ngërëm gi nga xam ne ni laq na ko ci mbooleem ay sëriñam mm-hmm. ca sëriñ yooyu mu boole ci kooku nga xam ne mooy Mawlana Maam Cheikh Seydi Hadji Malick làq na ngërëm moo tax mu naan ko wa xaafiran bi rahul azban namira bala mm-hmm. li xaaji malikina qasim maqamati mm-hmm. keroog ba nga xam ne teenu njaar ne te naa bënn waaw dinañ ci ñëw waaw teenu njaar ne keroog bi mu bi mu tëwee bënn waaw mag ñi bi ñu ñëwee Maam Cheikh Seydi Hadji Malick Maam Góor Saane la yàlla dogal maam Cheikh Seydi maam Cheikh Seydi Hadji Malick jox ko ci loxoom dénk ko loolu nga xam ne mooy bënnu teenu njaarne mm. góor gi def ci yitte ànd ak barke mag ak ñaanu mag mu dem mu dem mu dem ba yàlla dogal teen ba bënn mm-hmm. keroog ba maam Cheikh Seydi Hadji Malick mosee ca ndox ma bokk na ca ñaan yi nga xam ne nii ñaan na ko te ñaan googu moo topp njabootu maam Gor Sané ba tey mhm. moo tax Mawlaana maam Cheikh Alhaji Ousmane Niang wax ko ci way woowu mhm. mooy wa xaafiran birahul azman namira bala mhm. li xaaji malikina xaasil maqaamaati kon kooku mooy Mawlaana maam Gor Sané Niang damay bàyyi rek góor gi waaw nga xam ne mooy turandoo daal di wéyal Habib euh, li may li may faral di wax tey émission bi dafa dafa alaa daw mel ko sama sëriñ di waxee sëriñ Mansour ndax tey ñaar ñi ma séq la tey seen fàtt émission ko ñu ngi fàttaliku góor gu mag googu di El Hadj Góor Sané. dégg nga li ci sëñ Abib wax. nga xam ne njar googu lu fa euh, Seydil El Hadj Malick xod mu xaddamal xamul nu mu toll. waaye teen ba ba mu tëwee da ko woo moom. te dana ku am sama ngërëm am ngërëmu Cheikh Tidiane. Mhm. ku am ngërëmu Cheikh Tidiane am ngërëmu yónnante. El Hadj Malick bëgg na bëgg goo xam ne ni keroog ba mu teenam njar na bi bëndee ci El Góor saane bëgg goo xam ne amul am na fu mu commencé am waaye amul fu mu yem. góor googu te leen di waxtaan dégg nga li ak sëñ Habib wax ci ci góor googu nga xam ne ne bi mu jugee bi bi mu nekkee njarne ba teen bu bënn waaye góor saane bi mu bi mu jugee bi mu jugee bi mu jugee aafe doon wër Seydil El Hadj Malick man ko fekk maxam waaw ñëwal ma foofu waaw boobu ñu naan mbaxana la ko fekk Mouhamadou Góor Saane Ñaŋ mhm. radiallahu taala anhu mhm. bi nga xamee ni ndax Cheikh Seydi El Hadji dafa daan ñëw ci góor saane dama lay wax sax ne la Mouhamadou góor saane ñeng bi nga xamee ne yor na téere benn téere bu ñu naan ihmiraar bëggoon ko dawal li ñu naan jàng mag ñu naan dawal bi nga xamee ne xalaat na ci xool ndax mag ñi ñoom dañu daan tànnloo yàlla ndax bu nu demee lépp lu ñu soxla mhm. dañuy toog mhm. bakk yàlla mhm. yàlla jox leen réponse bi nga xamee ne yor na téere bi bëgg ku bëgg ku ku ci dimbali waaye xam nga mag ñi li ñu naan sidna cheikh radiallahu taala anhu sax bi nga xamee ne xam na la mu war a xam dafa dem topp góor yàlla yi waaye nag Mouhamadou Góor Saane Ñeng yàlla def def na ci moom la mu def ci moom waaye mu jël ko toppaat ki nga xam ne mooy maam Cheikh Seydi El Hadji Malick ànd ak moom ci ci mbokk waaye ànd ak moom ci li nga xam ne mooy ak nawle hmm. bi mu ànd bi mu yoree téere bi bëgg ko jàng hmm. léegi ñun am ku ne ko Buuna Alburi ne ko hmm. man dey am na ci ku ma yaakaar ne boo demee ci moom ñu naan ko Malick Fawad Wele muy Cheikh Seydi El Hadji Malick am naa yaakaar ni téere bi moom moom xam na ko te dina te te ci mën a ànd ak moom. waaw bi nga xamee ni. Mhm. wax na ko ko mu ne ko xaaral ma invité ko. Mhm. bi mu ko invité mu am fa ay fan mu natt ko xam nga ki bëgg jàng téere ba noppi di natt. Mhm. ba xam foo toll. waaye bi mu nattee Cheikh Seydil Hadji Malick. xam ne kat kii kat lañ ma boole loon te kii te kii waaja la mhm. ndax liñ naan ku doonul waaja doo xam kuy waaja mhm. maam Góor Saane Mouhamadou Góor Saane ñi ngi dafa xam kuy waaja doon waaja ba tax mu xam waaja mhm. bi nga xamee ne ànd na ak moom ne ko nag bëgg naa téere bii mag yow ñu ànd nga di ma ko jàngal waaye nag la jiitu maam Góor Saane ñeng ah, alaaji nga may ma tuuti rek alaaji Ousmane Ibnu Ousmane radiyallahu taala. ibnu alaaji góor saane. moo nekk ci ligne bi. sëriñ bi. babayka. ñi ngi en direct leeral TV. waaw. ma dalal tey alaaji góor saane. Mhm. ak sëriñ Habib. waaw. waaw góor googu nga affiché ci télé bi la. ñi ngi waxtaane tey sa maam ah. alaaji góor saane. rabbi yàlla taala léegi nag ñu wax na ne juddoo na Afetun jaar Afet Jolof waaye jaar Thiel. Ah, ah. góor googu lan bëgg nga ñu xam mooy kan. Ah, waaw bisimilah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam. Aliou Matar ñu ngi lay nuyu di nuyu sama njaboot googu toog ci tele bi. ñu hmm. ngi ak Habib ak mbooleem liggéey ci télé bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. Hmm. di leen ndokkeel di leen balu ak di leen ko baal. Hmm. day ñaan suñu borom subhanahu wa taala ak yu dox suñu digg moom yàlla nañu ko dégg jéggal yi nekk suñu diggante yàlla yi ci wóotu ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi waxtaane ku ku yomb waxtaane ku jafe waxtaane hmm. muy maam Moustapha Niang waaw ko tuddee woon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hmm. góor gi da koo daj ngir njàmbaaram hmm. ak barke mag ñi moo indi dostaane ji waaye Muhammadu Moustapha sallallahu alayhi wa sallam moom la ko bàyyam tuddee waaw moom mu ngi juddoo Afitun. waaw fa la jàngee alquraan. Hmm. la jàngee xeeti xam-xam yépp ci baayam. Hmm. nekkoon ak mag ju baax di wax Njoogu Mati. Hmm. ak ma Laamin Mati ak ñamu bokkal. ak Samb Kun ak ñamu bokkal ñëpp daal. juróom ñaari doomi baaru ko ji ñëpp ay waliyu lañu. est-ce dogal ci mbaaxam mu góor gi góor saane nag radiyallaahu gi Njoogu Mati moom moo waxoon suñu ma sangee sàng ma jullee ma ku jàppoon ci man tàccal te xam ne amoo sëriñ su ma demee demen wii nag ku jàppoon ci man na jàpp ci góor saane ndax su may tàkk góor saane su ma demee ba gisatuñ ma góor saane dana tàkk te duutul fay la ilaha illallah saane ñëw mu àndoon nag ak baayam baara ko ñëw afe hmm? ba mu nekkee afe nekk na afe diir bu yàgg nag waaw ndax afe lañ ko joxe maam umu hmm? affaire la Seydi Hadj Malick jox góor gi rawaan umu si mu fekk ko aafe hmm. mu indi ko foofu ci aafe hmm. yàlla miy dogal nag dogal moom nekkee aafe ba mu yàgg waaw da la jógee aafe dem ci Thiel waaw ba mu sëñ ci Thiel nag waaw euh, te boobu weebu na mi ngi yang-yang waaw fekk nag njóobu mati dana ko woon gidu dana fekk ca waalo Malick si lay tudd waaw su boobaa la ñu bëgg ci tarixa bi moo koy mottali da ngay ànd ak moom hmm. loolu mooy sabab bi ne ko Sëriñ Hadj Malick dégg naa Malick feeñ na ca Mbaxana. waaw dëkk bu ñuy wax Mbaxana ca boori gaaya kontaan ba benn njabootam bu rëbbi woon gaynde waaw gaynde googu da ko jox Bouna Ndiaye ngir mbég ca moom. yàlla ànd nag ak Sëriñ Hadj Malick fekk ko Mbaxana. Hmm. mu yaatal ko salaatul ba mu yoroon. waaw mu ànd ak moom ca ca njaar na ji ànd ak moom ci fépp. Hmm. ci njàng ma ca liggéey ba mu daan jóge Thiel nag. Hmm. daan jël ay seeli njamara. waaw di jël sànqal. waaw di jël dugub. Hmm. di jël ay loo di ko teg ba keroo muy dem Louga. dafa gudd ta télévision la. waaw duma ko du ko du ba mu ñëw Louga mu teg ko ci teree dem si Sadji Malick Sadji Malick seedeel na ko ne. waaw góor saani musta tàggoog man te béyee ma dundam ren ba déwén. kooku mooy góor saani ki la yëkkati nag soxna ummu am ak moom ñetti doom ñaari jigéen ke benn bu góor. Hmm. ñu bëri dañuy wax benn bu jigéen ak benn bu góor mais dañu juum. man mi man la wax. <laughs> ah Fat ki fi njëkk a taawloo Fat si la tudd. waaw. soxna Faati la tudd mais moom amul amul ren ak déwén amul at sax génn àddina. est que. bokk na ci ñi njëkk a rob ci armée Linguère yi. Hmm. moom soxla soosu te la ay dañu nag gane àddina ak alaaji Abay Lamin Ñaŋ. Seydi Hadji Malick dund ak moom bi 1922 El Hadji Malick génn àddina. waaw Góor Saane dund ak soxna Ummi mosuñoo tàkkalikoo ba 23 24 25. waaw bi Góor Saane nag di génn àddina def testament am. waaw daf ne su ma génnee àddina te sëñ kër ñëwul man Mansour ñëwul su boobaa na ma El Hadji Daouda Dieng taxawu. waaw su soxna Ummi liggéeyee ba pare nag suñu yéene ci moom ci Jolof dajul nañ ko ko jox. Uh-huh. wala ñu jox ko ma Masek Fasow. waaw. moo tax maam um si ca loxo góor saana la ne euh, gannaaw bi muy dem ci alaaji daawuda ja fépp sëriñ Haaji Malick di dund ndax de vingt-deux alaaji Malick nelaw vingt cinq góor saane nelaw ñu soog koo teg ci loxo alaaji daawu ji mu am ci fàtte ak sagar en tout ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu comme samay doomam fi te ñu ngi waxtaane loolu bëgguma ci sori eh, waaye daal gàmm gi nga xam ne taxawaloon na ko mille saa saa 1902 la woon gàmmu Ngeer ba ren. waaw kay. ah balaa bay Alaaji yore ko. di taawam. waaw di mu tuddee Serigne Touba. waaw ba mu fi jógee Alaaji Cheikh yor ko bi 88 ak 82 Alaaji Cheikh génn àddina. waaw Alaaji Ousmane yor ko 82 ba 1989. waaw le premier février 1989 Alaaji Ousmane sama sëriñ ci la génn àddina. Cheikh Fadi mii fi ne di ab xalifaam yor ko yàlla na fi gën a yàgg te ànd ak wér moo gën a kama ci mag a mag yi sët yi ak jullit yëpp yàlla na ko yàlla def ci barke li ngeen di taataan ci gàmmu googu nga xam ne jàpp nañ date bi la 17 février à 1924 yàlla nañ ci yegg te lépp ku nu daan mel yàlla na ko mel ñi ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla yàlla na yàlla def ci Sénégal jàmm février deux mille vingt quatre yàlla na yàlla def ci Sénégal jàmm def ci sutura def ci ay teewal wote yi ñëw ak daje yi di ñëw yëpp yàlla na ci yàlla def jàmm ci barke mag ñi ci barke yonent bi barke Cheikhu Tidiane yi barke Maam Góor Saare ñi barke sama sëriñ Alhaaji Ousmane ñi yàlla na leen yàlla fay ci taxawaay asal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullah taala wa barakaatu euh, Alioune Badara bàyyil ma photo bi tuuti ndax kii moo doon woote kii la ay magam doyloo waa ngeet doyloo ko jëmm ji yàlla na fi yàgg te ndax wax naa ni am na fu mu fekk ngeet waaye am na fu ko yóbbu te bëgg naa defar ngeet ba pare te bëggul ko ko tudd keroog bu muy defar jumaa ji di defaraat jumaa ji laay wax li fi li fi maamu bàyyi woon da ko def ba pare waaye loo wax ci alaaji alaaji Ousmane mën bu mu kenn tudd li may def dama ko defal sama mag. dëgg kii jolof di ko tiituroo ndax damay faral di wax ne léeg léegi ci turam ma wayaasi ci su ma demee ndaje ñu bëgg maa téye man maa ngi jógee jolof ci kër El Hadj Ousmane Niang ñu ma duggal ba pare boole bi ci teeral ma kon jëmb ji dañ lay ñaanal El Hadj Ousmane ibnu Ousmane sa baay bu yeewu woon El Hadj Ousmane Fati xool la da lay ñaanal tëddal mhm. ndax da nga koo tarbi mhm. mosoo dem fen ci wetam rek ngay toog xalifa bi Cheikh Fatim ñu ngi koy ñaanal ni mu ko waxee mu yàgg fi loolu te ndax du def lenn te tàgguwul xalifa mhm. kon alaaj Ousmane la ma la daan ñaanal ba mu yore micro yal na la yàlla musul mu musulee asamaan ci max yàpp mbaam xoox ci tabaski meew mbaam ci tam su nopp sàkk nga mënul ngaa nekk tey la wala nga nekk tey Ndakaaru wala nga nekk Touba dañ lay fekk ngal la ba nga nekk ak ñun kon ñangam dañ lay ñaanal dégg nga la mu wax mu bàyyi la rek nga waxtaan ci góor googu di alaaji Ousmane Niang dégg nga la mu wax sax dafa daf koo dagg ndax dafa bëggoon émission émission bi waaye <laughs> li ma koy wax léegi-léegi su ma demee su ma demee Tiwaawoon fekk ko fa day jël micro bi boo xam ne yónnante bi ma ne ko ñu ngi bëgg a gàmm gàmm gi fii nag sallallahu alayhi wa sallam yàlla fi yàgg yàlla wéral ko allahumma amin mu dund téeméeri at yi teg juróom fukk amin amin ya rabbal alamin na góor gi mm-hmm. bi mu jógee mbaxana mm-hmm. ba disanteeg Seydil Alaaji Malick ba wax cere yi nga xam ne dana ko defaree ca euh, euh, Thiel mu jaar aar jaar géeli mm-hmm. jaar daara jaar bulal dem caameen ñu jóge du dem Louga ñu teg ko ci train yóbbul ko Seydil El Hadj Malick bu ko téyee Saane du ko laaj dara waaye dana ma jox lu mu dundee ren ba déwén góor googu laa bëgg waaw Maolana Mouhamadou Góor Saane ñang loolu ba léegi daggut ak njabootam a ngi koy def mooy Mouhamadou maam Mouhamadou Góor Saane ñang moom relation bi nga xam ne daan na ko def ak Cheikh Seydil El waaye da ko daan def ak maam Borom Touba ndax dafa yoroon ay taalibe di leen jàngal di leen tarbiya ndax sa maam Serigne sa maam borom Touba ba nga xamee ne bëggoon naa gor àll boobu di Mbàkke Jolof ba nga xamee ne bëgg na ko gor waaye dañoo dikk ne ko ah lii nga bëgg nii day xam naa ne am na góor gu ma ci yaakaar ne boo demee ca moom sa aajo dana faju mhm. mu ne ko ayca góor googu de su ma ko mënoon a seeti ma seeti ko. mu ne ko ah kooku de Mouhamadou Góor Saane lañu koy wax. Mm-hmm. ba mu demee wax ca ak moom. Mm-hmm. mag ñi ñu waxtaan la ñu waxtaan Mouhamadou Góor Saane ñu jël ay dongaam ba ci ñoo xam ne sax. dañoo dañoo nekk ci dëkk bi waaye dëggal ko te topp ko ànd ak moom dem dem dem gori Mbàkke Jolof mm-hmm. ba nga xamee ne dem nañ di gor di ko jàppale ndax nee na ñaari néega fa nekkoon mooy Mouhamadou Gorsane Ñeng ak maam borom Touba ñoo ca nekkoon ba nga xamee ne dem nañ ba gor àll bi ba ba toj ko ci lañu ko woo ne ko ah Gorsane day soxna sa wàcc na soxna sa wàcc na ba mu wàccee mu ne ko comme ci rafetal ak ci àndandoo ak ci bëggante te yàlla rekk tax mu ne ko bu dee góor la nang ma ko tuddee. moom moom borom Touba moom maam borom Touba. waaye xam nga mag ñi. ci yar ci teggin. ci bëgg lu baax. Mhm. mu dem mu doon doom bu góor mu tuddee ko maam borom Touba moo tax bamba boo gis ci ñangeen rek. Mhm. maam borom Touba ci la moom lañ ko tuddee xalaaj bamba ñang mhm. léegi nag ma lay wax ne la. maam góor saani ñang moomu. bi nga xamee ni daana ànd ak ay taalibeem dem ci àll bi. di am di di rëbb ay la ak yi nga xam ne mooy ndek menti yi ci àll bi te mu dagan ci jullit da ko daan jël di ko def ay seel di ko sol ci ay saako bu duggee kër Cheikh Seydil Hadji Malick taalibe yi kenn dootul xiifati bañ nañ ko ba buñ ko gisee mu teg tànkam ñu ne ay góor ga dikkati na bu dikkee kenn dootul xiif da ngay gis ne ña nga xam ne sax dañoo xaw a mel ni man dañuy nekk mel ni sox koo xam ne dañuy bëgg a fecc ndax gis nañ góor gi ndax góor gi boo gisee ñu ne Mouhamadou Gor Sané Niang looloo tax ak njabootam ku mel ni suñu baay suñu baay bi doon woote sànq yal na yàlla guddal fanam wéral ay cëram hmm. ci barki sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hmm. moo tax lu ñu am bokk hmm. bokk nañ kook nit ñi ndax dañu naan ñengeen lenn rek mooy seen cat lu ñu am bokk kook nit ñi te képp ku ci am tee dañ naan la santoo ñeng Mouhamadou Gor Sané ñëng moom lépp lu mu yoroon daan ko bokk ak mam borom Touba waaye bu daan dem dafa daan dox diggante aafe waaye mu sori sori goo xam ne ku mu ci dem rek bu waxtaanee ak moom ba pare jox ko la mu koy jox ba ñëpp kontaan léegi nag ñu ne ko. Mbacke Bari la tase woon Mbacke Bari Bari la tase Mbakke Baari Mbakke Baari Mbakke Baari. waaw Mbakke Baari. waaw la tase woon ak euh, kii sëriñ bi. waaw la tase woon ak maam borom Touba. maam borom Touba. Mhm. léegi bi nga xamee ne. Mhm. maam Góor Saane Ñeng mhm. mi ngi yu def loolu. ci ak rafetalam ci ak mbaaxam. ci ak bëgg bokk. ci bëgg nitu diine. bi mu ko daan def. di ko def di ko def ba mu yàgg ah léegi nag mag ñi ku mel ni Cheikh Seydil Hadji Malick ne ko waaye yow ah fi nga nekk de sori na lool. te kat ku mel ni yow bu nekkee ci jamono ji ci dëkk bu mel nii war na mu jege si képp ku ko soxla mën a jot ci moom maam borom Touba tamit kadalika ne ko ah yow mii kat Mouhamadou Gor Sané Niang fi nga nekk sori na lool waaye képp koo xam ne mel na ni yow war na la war na mën a jege bis bu bëggee jot ci yow jot ci yow ca la ñu ne Mouhamadou Gor Sané Niang nekkagutoon ngeet waaye bi nga xamee ne dem na ci dëkk buñ naan ngeet fekk fa kuñ naan maam Isxaqa Caan moo tax am ñu naan ko Saane fekk ñu naan ko Isxaqa ba mu demee gis ko góor gi amoon kashfu lool nag ndax dañ naan nit du gis nit ku baax di ko bàyyi muy dem ndax kii nga xam ne mooy sidna Cheikh radiallahu taala anhu li tax ñu ne tey moo tëdd ca bërëm bërëbam bële mbaax ak kashfu moo tax ñu bàyyi ko fa tey jii mais kon mbokkam ya jëli woon nañ ko ba yóbbu ko waaye Mouhamadou góor Sané ñañ bi nga xamee ne mam borom Touba bëgg na ne man kat ku mel nii war na jege ku mel nii warut a sori léegi Cheikh Seydi El Hadji Malick tamit kadaalika wax lu mel noonu waaye góor gi nga xam ne moom la mu Mouhamadou Gor Sané ña dajeel mooy Isxaqa Caan te mu nekkoon ca dëkk ba nag ñu naan ñu naan leen caaneen ñu naan leen caaneen moo dalal Mouhamadou Gor Sané ña ngi mm-hmm. waaye bi mu ko dalalee daf boobu mi ngi nekk ay yor-yor mu mm. tàng jër. Mm. léegi nag maam Góor Saane ñu mu laaj ko mu ne ko man de damay sama kër néegu ndey laa jëm ca Lumbal. léegi nag mu ne ko waa kon fanaanal ba suba. waaye bi mu fanaanee. Mm. comme góor ga nga xam ne ca la Góor Saane ñu waroon a dem. ca la is maam moom la woolu. woolu ko ba mu ñëw mu ne kii kat bëgg naa kat mu toog fii. moom Mouhamadou Góor Saane ñu ngi miy toog léegi mu ne waaye nag. tontuwu leen ndax léeg da ngay gis koo xam ne dañuy wax brusquement rek mu ne waaw wala mu ne déet. Hmm. mu ne leen a ah, waaye may leen ma ma fanaan bi ñu ko mayee muy jaamu boromam di tànn la borom di tànn la boromam. Hmm. ndax booba fekk na nee nañ nag nee nañ ko am na lettre boo xam ne bis bu la fekkee fa mu la fekk ndax si Sidi El ma Malick moo bind lettre boobu dinañ ci ñëw. waaw ndax. bi mu nekkee bi mu fanaanee. ñu ne fanaan na fa diir ñii ne juróom ñaari fan. ñu ne lu ko yées waaye bi mu toogee ba mu yàgg rek Seydi Hadj Malick yónni ndaw ñu bind ca leetar ba ne ko mu Mouhamadou góor saane Niang leetar bi fépp fu mu la fekk rek foofu mooy sa daluwaay. mu fekk ko ngeet. mu fekk ko ngeet. mu dal ak uh, góor gi sàq caan. góor gi sàq caan. dinaa ñëw ci yow. ndax euh, tey dañuy waxtaanee El Hadj Gor Sané. te wax naa ne xajut ci une heure de temps sëñ Habib. Euh, xam naa ne dinaa ñëw ci yow sax téléphone góor gi non dama bëgg nga am loo ci wax. ndax euh, dam El laaj Ousmane Ibn Ousmane. lii ci rajo laa commencé woon. heure bu ma ko defee mu woo ma. nañ ko teewee ay déwén. muy nekk sama séddoo nekk sama bunt ci nger waaye nag nuyu jëwrin laaj baara. laaj baara. li daloon sa baay moo da moo la dal sa baay demutoon fenn dafa yoroon saret bi waaye fu baayam dem laaj Ousmane Fati mu daw la ko te fa fa la koy fekkaat du wax na ko xiif naa du ko wax mar naa laaj baare oncour lu baayam bëgg la bëgg muy suñu jëwrin damay wax ne doomam mbërëg wàll bu buñ koy sukkal ak raamal maqaam ma baayam a tax waaye maqaam bëggay am bi jiiti mbooloo moo koy sakkul boppam laaj baar bu ñëwee Ndakaar du fa def ñaari fan ndax baayam da koo teg daara waaye nag sëñ bi bay suma buntu nag moom moom la ma góor gi di bàyyeeg te nag góor gi nga laal léegi muy alaaji góor saane radiyallahu dafa bokk ak réew mi di wax nga léegi lim bokk ak alaaji malik wax nga lim bokk ak borom Touba. wax nga tey li nga xam ne mooy almeeru ngeet yi bàq ya biñ koy rëdd Seydi alaaji malik ñëw maam borom Touba ñëw alaj góor saane ñëw lu ko fi suul sa yaram aram na safara soxna fat si mi mu doon wax moom lañ fa njëkk denc moo tax lu waay dem dem dem boo bokkee nget dana dañ lay jëli fa lan lay denc yaakaar googu ma nga waaye góor gi ni waxtaanee dafa am abib sa mbokk bokk ci yow boo di mbokkub sëriñ bi di ko tiituroo muy alaaji maxtaar caam koo xam ne diine ji fu mu dem Alioune Badara alaaji Maxtaar Thiam ambassadeur ambassadeur alaaji Maxtaar Thiam moom mi ngi noonu diine ji fu dem alaaji Maxtaar Thiam dugal na fa loxo di wax ne wa ak mbaaxam da ko njëkk ci bokkam da ko njëkk melax dem bu ci bunt bi tabax fa kër gan waaye nag da ngeen bokk maam ndax damay wax ne aw dikk kamara dafa waree kamara wàcc cànq am fa ndumbe sànqe am fa Binta Sànqe ak Daaru Sànqe ak Ndumbe Sànqe Daaru Sànqe lan yóbbu afi moo am fa Daaru Ndumbe Ñang Daaru Ndumbe Ñang lan jox moo di Soxna Buso moom Maara Mbàkke moo am fa astuwaale Ndumbe daanu Tafsir Mbàkke Ndumbe daanu astuwaale lan yóbbu Buso bi mu am ci Maam jaar ak Sëriñ Buso bi Maam jaar lan jox xaalal mamal Anta Sali Sëriñ Tubaa feeñ jëmm ji nag yaa ngi moom ak sëriñ bi da ngeen bokk maam Binta Sànqe maamam Binta Sànqe nag moo jur Xari Mbay Xari Mbay moomu fat coro mbay moo fat mbay bënta sànq moo jur ndongo binta ñu baal ma ndongo binta jur xari mbay xari mbay jur fat coro mbay fat coro mbay jur ndàpp mbay ndàpp moo jur jabu mbay jabu moomu nag moo jur ki nga xam ne mooy mëti mëti mëti si la mëti jur astu mëti as mëti moomu nag moo jur awanday si la awanday si la jur koti sànq koti sànq jur fat si la fat si la jur alaaji maxtaar caan kon alaaji maxtaar caan nu koy diini jiitu ko yëg kon sa mbokk tey alaaji Ousmane tam maam sàq caan di maamam borom juróom ñaari jumaa yi ci ngeen waaye juma maamam joo tudd rek alaaji maxtaar wàlliw la boo tuddee maam ji maam maam Samba Thiar grammaire arabe ak ci moom lañ ko daan jànge ndax wax naa ne maam Maxtaar Numbe xaritam la maam maam Maara Mbakke bi mu ñëwee xarit di xaritam dafa jël doomam ju ñuy wax maam Cerno Farimata maam Maxtaar Caan la ko tuddee ndongo binta na binta sànq mooy sa maam yow binta sànq moo jur ndongo binta ndongo binta jur faati mbay faati mbay jur ousmane faati mu jur alaaji usmaan mu jur la awa dikkër camara jur faat sànq faat jur gàdd faat sànq gàdd jur baar xujja baar xujja dem lu mbal ñu jox ko saane njaay mu am ci alaaj góor saat noonu ngeen bokkeeg réew mi bokk ko alaaj maxtaar caan waaye tey yaa ngi woon fu neex ndax damay wax ne gu ma duggee geet sama yaram day daw ndax dama leen a xam wax nga léegi ba tudd sëf sëf sëfiyatu ñang mi jur mi nga xam ne mooy sa mbokk boo demee aafe mooy sa mbokk waaye dañoo jël gàmm gi ren sëñ Habib foofu laay duggee ci yow tuddee ko njoogu mati sëriñ bi dafa def loo xam dafa dellu mbaat ci ndaal laaj ju njoogu ñang moo doon jiite sëf yee ba di mbokk ma te njoogu wax naa ko sànq bu jëlee gàmm gi delluwaat nañu mbatt ca ndaala li maamam defoon ci àndoon ak sa maam mu wóolu ko ndax yéen damay faral di wax nag genn golo gudd na waaye loo ci laal borom yokku ndax say abib ni ko gisee toogaayam bii bu gisee alaaj baar dina rëpp ci suuf donte xaw na koo yab léegi-léegi waaye dana rëpp ci suuf sëñ abib tey góor gi dugg nag di alaaj Ousmane lan nga ñu mën a waxtaanee ci ngeet tuuti rek ma ñëwaat ci sama waa ji ndax sama waaj bu ma ko joxee sama yaram day daw. barakallah waaw ngeet nag niñ euh, fa mën a waxtaan mooy liñ fi waxtaan. Mm-hmm. maa fa yow maa ngi yow ñoo fa bokk yem. ñu mm-hmm. bokk yàlla loolu la yàlla dogal. Mm-hmm. gàmmu ngeet lañu jëm ren mu nekk cent vingt deuxième édition. muy téeméer ak ñaar fukk ak ñaar. ci gàmmu ren muy tombé le 17 février incha allah rabbi. gàmm googu nag comme ni ko sëriñ bi waxee xalifa bu njëkk ci maam Gor Sané Ndiaye moom Alxaj Bamba nga xam ne mooy way juri xalifa bi sëriñ Cheikh Fatou Niang moom moo ko yoroon mu bàyyi fi moom Alxaj Cheikh yor ko mu bàyyi ko fi moom Alxaj Souman mu bàyyi ko fi maam sëriñ Cheikh Fatou Niang mii di xalifa bi yor ko waaye bi mu ko yoree nag dafa jëlaat léppam gis nga góor gi di nekkoon ci maam Gor Sané Ndiaye radiyallahu anhu ci fees dell ba pare wane woo daraay sa bopp mhm. loolu la maam Cheikh Faat maam Serigne Cheikh Faat ñam ñii toogee jotaayu maam Gor Sané ñag defaat mhm. yàlla dafa dogal li mu dogal ci moom ci wilaaya mhm. yàlla dogal ci moom li mu dogal ci moom ci xam-xam yàlla dogal ci moom li mu dogal ci moom lépp waaye mu jëlal léppam nag joxaat ko ay njabootam joxaat ko ay rakkam ne leen dénk naa leen leen gàmm googu nag nekkoon tabaarakallaahu ci loxoy góor gi nga xam ne moo doon woote léegi. Mm-hmm. ba ngeet fi nga xam ne ni fa la toll ci tur. Mm-hmm. dimension bi nga xam ne ni am na ko. Mm-hmm. ba fépp ci mais mais Habib sëñ Habib lépp sotti na. waaw. Hmm? na. waaw maanaam matériel baax. xam nga xam nga CRD la ñu jugee. waaw xam nga bu mu xoolee tey xam ne dama soxla. waaw waaw waaw. parce que dañu jugee CRD. waaw directement ci gouvernance bu Louga. waaw jàdduñu kër gi dañuy ñëw directement ñëw def émission. Hmm. yàlla dogal na alhamdulilahi rabbil alamin mhm. gàmm gi coordination bi mi ngi jaar yoon waaw sëriñ bi jël euh, rakkam mhm. alxaaji baaba ñang mhm. alxaaji bamba ñang bu bàyyi alxaaji bamba bu bàyyi alxaaji baaba yebal ko tey ci gouvernance yebal ko ne ko demal nga nga nga ànd ak say rakk ngeen dem taxaw gàmm gi mu ñëw mu def ci taxawaay bu am solo sëriñ bi toppaat ci di coordonné lépp li ci war mu ngi koy def moo tax alhamdulilah mën naa wax ne jamono bii may wax ak yow amul lenn lu ñoo xam ne ni daal. Mhm. ñu ngi koy bëgg te lu dul loolu sotti na. Hmm. xanaa di xaar bés ba. waaw te sëriñ bi am lu mu wax nag ne nañ ko bàyyi xel. Hmm. wax na ko te bëgg na mu bokk ca la ñuy waxtaanee keroog ca bis hmm. mooy ñu bàyyi xel ñaari crise yi nga xam ne ni am na ci dëkk bi. te muy réew mi ku nekk xam na ne ñu ngi jëm ay élection waaw jamono bii ñu ngi tudd ay crise institutionnelle ñu di tudd crise politique. waaye bu mu ci mën a doon sëriñ bi nee na moom woote. Sénégal di woote réew mi dañu mm-hmm. ñëpp nañu bàyyi xel di ñu bokk te muy réew mi te muy mm-hmm. bokk na ci thème yi nga xam ne bëgg nañ ko traité incha allah ren ci gàmm mm-hmm. maam nga xam ne ñëw nga ci waaw gàmmu daaw ñu tuddee woon ko ko comme ni ko waxee si Abdourahmane Niang mi nga xam ne ne mooy xalifaam tabaarakallahu teewee woon ko defoon ci lépp li nga xam ne ni war na ca yaa di représenté ñi nga xam ne ni mooy njabootu maam Ndiobou Mati yëpp nag. noonu lañ koy defaatee ren chaque gàmm rek. sëriñ bi ci njabootu maam Baara. duppee mu nekk ak fàttaliku ci ñoom. gàmm gi ren aussi incha allahu rabbi noonu rek lay demee. ok jërëjëf euh, sëñ Habib euh, tey ñu delluwaat nag ci ci ci El góor saane euh, góor gu màgg googu xam nga kër gu mag moo fu njëkk a wasif moo fu njëkk a lal malaanam wasif doon wax xam naa sëriñ bi sax doon na ko toj digganteem ak sëriñ Touba ba nga xam ne ne fekk na sëriñ Touba kër gu mag keroog ba xaw ma wasifa jot xaw ma xadra juma daal am na bu mu fa defoon loolu laa bëgg nga ñëw waaw Mawlana Mouhamadou Gorsane Niang hmm. dafa nekkoon koo xam ne maam Njoogu Mati hmm. mi nga xam ne nekkoon nag moom ba yàlla def ba mu dem ba am relation ki nga xam ne mooy maam borom Touba hmm. waaye bi mu demee ci kër maam borom Touba dañ na heure ba dafa jot xam nga tiijaan rek. julli ba pare war a wasifa. waaw xam nga ni képp ku nekk ci mbooloo. dina am ñoo xam ne yàlla daf daf yàlla daf lay dimbali. Mhm. ba du ñu mel ni ñenn ñi. Mhm. léegi nag ba muy wasifa. Mhm. la am ca kenn de ne ah waa ñii lu ñuy def. waaye nee nañ ba nga xamee ne maam borom Touba nee na ko yor fa mu jaaroog moom duñ fa mhm. yegg mhm. waaye nag loolu lépp ci lan mhm. ci xam li mag ñi nekk waaye liñ naan alquran li muy wax naan lakkum diinukum waliya diin ndax ñoom ñoo bokk diine lépp ñoo ko bokk ñoo bokk bokk gi ñoo bokk diine ñoo bokk sayduna muhammad mi ni roy waaye ku nekk am na fu la yàlla féetale moo tax nit ki ci la nga xam ne ca la nekkoon mooy wasifa mu gëm ko lool doon taalibe cheikh lool mu dëgg ci moom lool léegi nag maam borom Touba woolu ndax ka nga xam ne melal ne kuy saboote waaye xëy na dafa xamut ndax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dañ daan wax naan ñii lu ñu def mu ne dañ maa xamut ndax ñu ñaan ti bi dañ ko bañ ñu ne kenn bañu ko dañ koo xamut waaw kon nag kooku dafa ñàkkoon a xam Mouhamadou Gorsane Niang loolu waraloon muy def loolu mais xamu ko woon waaye ba ko maam ak ñàkk xam lam doon def ak ñàkk xam lam doon def. Mm-hmm. waaw ñàkk xam lam doon def. Mm-hmm. ndax wasifa. waaw moo doon loo xam ne ndax ne nañ astaghfirullah rek. waaw. alif ga dafay firi allahumma. Mm-hmm. siin ga dafay firi sat yaa sattaaru. taaga dafay firi taaga dafay firi sattaaru. raaga dafay firi yaa gaffaaru. raaga dafay firi yaa rahmaanu. allah. mooy borom bi tabaraka wa taala kon nga xam ne mag ñi dañoo nekkoon ci benn lii ligne éditoriale mooy li ñu wutti borom bi tabaraka wa taala kon moo tax ñu naan képp koo xam ne ma ngay nekk ca dingat mag ñi bàyyi kook la mu yor te mu bàyyi ñoog yor dama koy wax toujours ma ne na koo xam ne dafay dingat mag ñàkk bañ jënd 4 mètres rek moo ko moo ko naqari mhm. waaye bu defee ñun mag ñi la am mhm. suñuy maam la ñu am ku mhm. mel ni Mouhamadou Góor Saane ñi nga am ko ci réew mii jar na daw ba daan dëgg la ku mel ni Mouhamadou Góor Saane Ñang mhm. nga am ko ci gox bu mel ni Jolof mhm. jar na daw ba daanu mhm. man de damay wax naan lépp lu waay soxla lépp lu waay bëgg te di ko ñaan bëgg ko am demal Jolof boo demee ba ca xabru ba ñaan yàlla loo ñaan yàlla mu may la ko ci barki maam Góor Saane euh, euh, maa ngi ñëwaat ndax bi may wax euh, Alioune Badara bi may wax Alaaji Maxtaar Caan sànq maa ngi wax ak maamam yi waaye dam ni bokkee mais xaw naa faa tëb ndax dama déparé si sax bint sànq mi nga xam ne mooy maamam wax naa bint sànq ak faat sànq ak euh, daaru sànq waaye bint jur xari mbay xari jur faat coro mbay faat coro mbay jur ndàpp mbay ndapp nag moo jur euh, euh, ndàppoo jur jabu si la jëbu nag moo jur mati silla mati silla jur astumati astumati jur awa ndey silla awa ndey suure jur koti sànqe koti sànqe moom moo jur nag ki nga xam ne mooy fat silla fat silla jur alaaji maxtaar waaye di mbokkam tamit ki nga xam ne mooy di sama xarit di ñu seetaan nekk ministère de l'élevage di alaaji mbay silla alaaji mbay silla nag mënuma koo waxtu xuma alaaji góor saane alaaji góor saane moo alaaji mbay silla mooy mooy maamam moo bokk ci la moo bokk ngeet moom moo bokk cànqee tamit laaj mbay si la moomu di ko baax ndax keroog ba mu tudd doomam maag sëñ Baara ak yow ñoo fa nekkoon moom nag tiitaroowut kenn ku dul alaaj góor saani waaye turiw ko alaaj alaaj Maxtaar mii di nijaayam mu bokk ak yéen di bokk ak yéen waaw kon nag wax dëgg yàllaam kon dan koy gërëm di ko sant bu baax góor googu ñuy waxtaanee xajut ci une di nee na ñu ngi may signaler ne des na juróomi minute dama bëgg ñëw ci sëñ Habib bu mu ñëwee si sëñ Habib dellu si waat si yow xam naa rek tàggu sëñ Habib euh, gàmm gi dëgmal nañ ko. waaye euh, def naa ne lépp yomb na. lépp yomb na waaye gàmm googu nga xam ne ñoo jëm euh, day gàmm goo xam ne tuwaar fa kàll macha allah gàmm gu mag la. tey la di 17 ñëpp war leen di ñëw fekk si. nan ngeen préparé gaay ak gan. gàmmu gi xam naa ne càlleen yi moom ak ndaween yi moom. gàmmu ngeen moom. Mhm. xam naa faane ni. waaw. ak ndaween yi wala ak gayeen yi laay wax sax ak ñi sant Dieng mhm. dinañ am mbégte mhm. waaye nag ñi nga xam ne ñooy taalibe yi mhm. ñi nga xam ne xam-xam daf leen a ñor yàlla ñor leen di dem ci bërëbu nitu yàlla yi di fa dem di sàkku ci seen borom sun di sàkku ci seen borom di ko wëri gàmmu ngeen daf leen a ñor parce que nag xaj maxtaar gàmmu waaw maam Cheikh Seydi Xaaji Malick moo waxoon ci gàmmu rek ngeet ba léegi moom la ñuy def mm-hmm. mooy dañ koy def mu tegu ci sunna mm-hmm. waaye ñu fexe ba bu ñi ñëw muy pèlerin yi nga xam ne dañuy ñëw ci gàmm gi mm-hmm. bu ñu delloo fa ñu jigee ñu mën a yëg ci seen bopp yàlla bañ a yam ci rek ci gayeen yeeg faaleen leen fi indi mooy yëg seen biir yu fees waaye dinañ yëg yàlla waaye nag en même temps dinañ yëg seen biir yu fees te gàmm gi mu ngi commencé alxames waaw gàmm ngeet ku nekk xam na ne moom te bu ñu jullee jumaa nag xadara jumaa ga dañu bu kentar waaw programme bi noonu lay demee. waaw jeudi bi comme ni ñu ko daan defee. ndax weer bi bu xasee ba ba ba teru rek. waaw kaamil yi commencé na. waaw ñoom Baye noonu nga gasama tabarakallah ñun ñëpp ña fa. awraad yi mhm. commencé. Mhm. daara yi ba ci daara Baye Cheikh ñang bi nga xam ne maam Góor fa la jógee. Mhm. daara yëpp ñu ngi ci kaamil yi ñu ci awraad yi. yi xam ne nii moom la ñu joxe. di ko def nag ngir réew mi. di ko def ngir askan wi di ko def ngir Sénégal yëpp waaye ngir àdduna bi yëpp jàmm di am bu ñu demee ba ci alxames ba ñu demaat ba ci àjjuma ji ñu tëj ñaan yooyu daal di jublu nag dem ci julli gi bu pare nag def xadaratu juma bu mag boobu nga xam ne moom la def ca biir ngeen bu ñu noppee nekkaat ci ziyaar ba ca suba sa bi samedi ba incha allah ñu nekkaat ci suba si ziyaar yi nekk ci programme gàmmu ga cérémonie ba 17 heures comme ni mu daan amee noonu lay amee guddi gi nag ñu ànd ak waa waa tannaa ul rasul mm-hmm. ñu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala mm-hmm. fajar alaaj gay ñu ngi koy nuyu alxaaji gay waaw ak groupe ba ak groupe ba yëpp maa ngi lay nuyu sama xarit boobu ndax noonu la noonu la noonu la gàmmu ngeen di demee mm-hmm. tabaarakallah nañ ko daan defee rek incha allah di woo di ci woo ñëpp di seet février incha allah. mu tombé samedi. Mm-hmm. ñu ngi woo réew mi yëpp. di mm-hmm. woo képp koo xam ne ni njabootu Mame Gor Sané nga soppe nga. Mm-hmm. xarit nga ci lenn ci njabootu Mame Gor waaye ku bëgg lu baax nga wala ab jullit nga ñu ngi lay woo ci xam naa ne Habib Ngeet dafa bokk ci commune de Daara. waaw monsieur le maire. sama jarbaat ku baax. Samba Ndiobène Ka ministre de l' agriculture de l' équipement rural et de la souveraineté alimentaire. ndax wax naa ni. bi ngay commencé daara am na nu mu def ngeet dana du laal biir daara damay dem ba ngeet defar fa tali ba taal làmp ya waaye daraam bëgg koo commencé daara dafa bëgg commencé kër sëriñ bi te day xaritu sëriñ bi day sëtam day sëtam day sëtam ndax am na lu sëriñ bi di nettali toujours digganteem ak sëtam kooku tamit wax dëgg yàlla monsieur le maire ñu ngi koy gërëm yàlla defal ko jàmm yàlla sa gàmm ngi noonu sàmm njóobeen nga xam ne ne ci social rek lay dox gis nañ nu mu def mairie na barki démb dem na gis nañ mairie na lan fa gërëm gërëm fa googu looy tàggoo waaw kon damay delloo santaat yàlla bu baax mm-hmm. waaye nag di santaat ki nga xam ne muy suñu way jur mm-hmm. muy bay alxaaj Ousmane soxna Ñang mm-hmm. di di tamit ki nga xam ne mooy imam Cheikh na Ahmed Tidiane Niang mhm. di di di di way jur ci Mouhamadul Habib waaye di way jur ci man mhm. waaye di nuyu tamit képp koo xam ne famille Gorsana Niang mhm. muy sët muy doom muy lépp ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara te di la baalu xaq te di la ko baal di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla boole waaye di la nuyu bu baax di la ziyaara di kontaan ci invitation bu baax a baax di wax ne lépp lu ci rafet rek ci yàlla la mhm. waaye lépp loo xam ne nag moom dafa dëng rek ñu xam ne jaam bu xeebu Mouhamadou Gor Sané Niang mhm. di turundoo góor gi waaye nag di ñaan yàlla lépp loo xam ne góor gi ñaanoon na ko yàlla nañu yal nañu ko yàlla defal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di delloo di nuyuwaat suñu mag ju baax ji di Mouhamadul Habib mhm. baax lool woyof lool am yitte lool am yëg-yëg lool ci nit taw yàlla xam na ne dama koy ñaanal toujours parce que nit ki nga xam ne féete na la mag ba noppi jàpp ne moom magu la loolu dama ko koy ñaanal yàlla waaye nag ci way juróom la ko royee ndax suñu way jur toujours daf ñuy toog di wax nañu mm. Mouhamadul Habib moomu de seen mag ñu ne ka mm. ah, ha mu ne baayam day ba mu doon tarbiyu baayam jugul ci wetam mm. ba lépp lu mu am tey tarbiyu baayam moo ko may te moom mi ngi ci tànk yooyu kon nag di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam wéral ay cëram nga ñaanal ñu tamit ñu mën a tarbiyu suñu way jur ci barke Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu téléspectateurs yëpp ak képp koo xam ne mi ngi ñuy dégg ak ñu déggul di leen ziyaar bu baax di wax ne wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf euh, sëriñ Alioune Badara may ma ñaar benn minute sax bu la neexee nga nga nga may ma rek ma nuyu sama sama xarit comme dañuy seetaan jolof la ñu am moo ñuy bëggee ndax fan sa club baa nga fa man nuyu nag sama cerno Amadou Sow borom lumbal dooki sama xarit boobu nga xam ne ne wax dëgg yàlla am tawaar fa kàlla taxawu na ma di ma ñaanal yàlla defal ko jàmm cerno Amadou Sow maa ngi koy gërëm bu baax Serif ay dara bisam boobu le 3 février la ndax wax naa ne Chérif Lamine Adel sëtu Rasulullahi bi nga xam ne ne bés boobu nag dafa day gërëm Moussa Ndiaye maire de Thiamène Pass nga xam ne jàppale na ko ci lool taxawu ko ci jàppale ko taxawu ko jàppale ñaanal tamit Basirou Niang mi nga xam ne moom la bokk ak Saara nga xam ne Bas Niang di borom social di borom lépp ak maamam di honorable député Adjaratou Ndeye Fatou Guissé député boo xam ne ne vraiment mi ngi koy jàppale taxawu ko bu baax ñaanal bu baax nag ki nga xam ne mooy Aziz sama xarit bi borom ñaari bii maa ngi koy gërëm di ko sant ñaanal sëriñ Dia sama xarit boobu nga xam ne toujours fu mu ma taxaw tuwaatu kàlla mi ngi may ñaanal ñu ngi koy sant di ko gërëm di leen wax ne di ña di nuyu nag bu baax Alioune Badra ak Mohamed Thiam mi nga xam ne ñoo nekk ci ñee son bi ak su ma rafetee ñooma sama ñaari doom yooyu nga xam ne ne maa leen di tax a guddeel fii ci télé bi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen wax ne sëriñ bi ngeen ñaanal leeral TV. ndax leeral TV damay wax ne la lëndëmoon leer ñu ngi koy leeral ni di gërëm bu baax alaaji daam Dieng ndax investir na ci dëkk bi te mi ngi taxawu dëkk bi gërëm ñëpp gërëm Mansour Dieng sama xarit maa ngi koy gërëm gërëm gërëm ñëpp waaye euh, ñu ngi doon fàttaliku tey alaaji Góor Saane Ñang mu baax mi mi nga xam ne ne wax naa ne mbokkum réew mi dégg ngeen li sëriñ bokk ak Serigne Touba dégg ngeen li mu bokk ak Seydil ngeen jaar-jaaram yi nga xam ne jaar na ko fii ci réew mi te xajut ci benn émission moom kay dañ ko cee tëxañ rek li sëñ bi wax dañ ko xaw a kii rek Euh, boole lépp rek euh, def ko ci benn émission waaye di jox rendez-vous ñëpp nag la 17 jolof la ñuy tase ci gàmm gu mag googu di nuyu nag El Hadj Cheikh Fati Niang yàlla yàggal ko fi nuyuwaat sama sëriñ bi toog di El Hadj Habib xam ngeen ne song na waaye moom fii ak le 18 jotul du noppalu ndax day ndam la bëggul ndam waaye day bëggal ndam ngeet bëggal ndam baayam waat sama waa ji nuyu ñëpp yàlla defal ñu jàmm ci réewu Sénégal ba àllarba incha allah ci beneen émission seen xarit El Hadj Matar Guissé jërëjëf Alioune